غيره ولا معبود إلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل الصبر عند الصدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون لكي جنبي لكي طريق جان لكي فائدة في لكي السنغال لكي عبد النبي من لندن في في كرم في أبتو مام كرم دايمك jàkkaarloog jumaa ji di nuyu mboolem auditeurs yi nga xam ñu ngi déglu Alpha Baaxoon di wax ne tey jii di jotaay bi gendeeku bi siis mu rëy dal na ci téyub Mawlaana Cheikh al Islam Alxaaj Ibrahima Ñas bànqaas bu rëy ci kër maam Alxaaj Abdoulaye Ñas fàq na bànqaas bu rëy ci farata tijaan fàq na bànqaas bu rëy ci lislaam fàq na mu di alxaaji barxam ñes ñi nga xam ne ñoo nekkoon xalifa maam sëriñ mbay ñes fii ci kër ma jabel te cheikhul islam mawlaana alxaaji ibrahim ñes di di sëriñam sampoon ko fii ci gannaaw bi way jërëm génne àdduna mu nekk nag koo xam ne Sénégal yëpp seedeel nañu ko ci ak dëggoom muy koo xam ne magam ji tedd ja alaaji Abdoulaye Ibrahim ñoom ñaar ñoo bokkoon jikko ay nit lañ yoo xam ne ñu ñàkk caaxaan lañ ñu dëgg lañ te suñ borom subhaanahu wa taala dam ñuy ne lañ ñu ngeen di àndal danañu wa kuunu maa saadiqiin yàlla booyoon woon na ko ci saadiqiin yi lépp lu mag dëgg la waaye itam lépp muy def dëgg la te itam ci dëgg woon la ci ay mbiram mm-hmm. da nga xam ne képp kuy caaxaan wala nga nekk koo xam ne da am ñaari wax wala nga am it jikkoy naa fekk doo ko jóge doo yàgg ak moom mu nekkoon it koo xam ne ku dogu la mu nekkoon koo xam ne itam ku jub la mu nekkoon koo xam ne ku maandu la waaye nekkoon jëmm joo xam ne itam ku amoon itti ju kawe la ngir ndono li nga xam ne bàyyee woon nañ ko ko bàyyi ñes radiyallahu anhu dénk ko ko mu tegu ci loxoom bàyyam maam Serigne Mbaye bàyyee ko ko daf koo joxoon ak ci loxo ba lépp lu bàyyam maam Serigne Mbaye ñes moom def na ko fukk lu defoon fukk moom def na ko téeméer te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët muy it koo xam ne demul dikkut kon dégg ko ci lenn waaye nag mu ngi ànd ak yàlla rek nekk ci yàlla di jaamu yàlla di liggéeyal yàlla ba lépp fekk ci ko fi nekk nguur mosu koo yàpp ndax saay soo xamante ne nii dara xewoon na ci réew mi ñu koy nës na ci diggante nguur ak nit ñi moom xanaa mu bañ koo yëg dégg wala mu bañ yëkkati kàddoom mais bu yëkkatee kàddoom rek képp ku dëgg-dëgg wala képp koo xam ne bëgg nga lu baax bu boobaa da nga ne ah alaji baram dana wax da bu waxe li naqari jullit ñi dana ko faj li naqari tariqa tijaan dana ko faj li naqari sëy bi dana ko faj li naqari kër maam alaaji abdoulaye dana ko faj melokaan woowu moom la ko ñëpp xam ba tax na saalum tund saalum gii ñëpp ko bëggoon ñëpp ko fonkon ñëpp ko nawlo dem na dama nga xam ne duñu wax ne talibé bàyyi rek ñu bëgg alaaji baram waye képp ku jullit képp ku bëgg dëgg képp ku bëgg lu baax bëgg nga alaaji baraam loolu nag wax dëgg yàlla nekkul kéemaan ci koo xam ne alhaaji maam sëriñ mbay ñas mooy sa wayjur ba noppi maam alaaji abdoulaye ñas di sa maam cheikhul islam alhaaji ibrahim ñas yar la yaral la boppam ñu tudde la ko mu samp la kon kii benn karaama la woon ci karaamay bàyyi mm-hmm. benn feeñuwaay la woon ci bàyyi waaye nag jamam ji mu dem ak ni mu gaawee ak ni mu bété lolu tegtale na ne yàlla nangul nako ko na itam ku texe la na itam ku liggéey la rek ba wàcc dal di dem añi kon jarta tiisoo jarta naqarlu baay daana wax ne إذا كانت الأقدار من مالك الملك فصيان عندي ما يسر وما يبكي وفكنت أن كم yëf moy dogal dogalam man de ala Ibrahima Niass lay rélo ak lay jëlo moyam ci man kon tarbiya bobu mom la bàyyi yar ay taalibeem ak ay topam da dañuy sant yàlla ci jalal comme niñ koy sant ci jamal waxna ko ci ruhul adab idaa raayta mazharal jamaali laa tabxa warda mazharal jamaali kamaali te jalaali ne bu fekkente ne dina gis feeñuwaayu jamaal muy xéewal yàlla yeeg yu neex yeeg li dëppoog sa bànneexi bakkan bu fekkente ne da nga koo gis yàlla defal la ko loola bu mu tax na nga nga beew mais santal yàlla waaye itam bu yàlla wàccee ay jalaalam ci sa kaw teg la ay nat teg la ay tiis bu mu tax nga caalit gërëmal dogalu yàlla dëgg la nag ñun tey wax dëgg yàlla ci at mii lam waxoon kat xusifat budurun indaha dal nañu ndax li fi bàyyi ko la tàmbalee ci Sayda Fatimatu Zahra ñu di ko jooy nottiwuñ xalifa bi ñëw papa Cheikh Ahmed Tidiane di Serigne Makhtar yaa ngi dégg ñu ngi jooy loolu Seyda Mariam ñuy waxati loolu Alaaji Baraam ak ñi nga xam ne mënuñ leen a tudd ci ay yeneen kilifa bu boobaa metti na waaye nag ñooñu ñëpp kenn ku ne bi ngay laata dem yow fexe nga ba bàyyi bi sa fukk wala sa téeméer tey ji Alaaji Baraam dem na wuy ji boroomam benn Alaaji Baraam moo fi newoon waaye incha buñ baxee tuuti di ngeen xam ne ay alaaji baraam yu bëri ñu ngi fi ay rakkam ñu ngi fi di doomi maam Serigne Mbaye ñoom jox ko worma ak jox ko cër ak kër gi ni ñu bindoo ci toppante moo tax kenn feeñalul dara waaye ñoom ñëpp incha allah bu ñu taxawee da ngeen xam ne euh, dégg nga bato dem la rek bato fas yar na ay doomam jàngal na leen defal na leen jikko yu rafet ba ñoom ñëpp kenn ko ne boo taxawee nekk alaaji baraam taalibe yi àndoon ak moom yar na leen ci jikkoom def na ci ñoom alaaji baram kon dëgg-dëgg moom daal nañu ko ndokkeel du sax ne dañ koy jaale mais dañu koy ndokkeel dañ koy sant la yàlla di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla leeral kanamam leeral gannaawam ba mu jëm jëmal ko fa mu jóge may fàttali rek mbokki taalibe yi euh, Seydi euh, Bachir euh, ne bàyyi li mu joxe woon ñu di ko ñaanal ku fi jóge hmm. bu lu mel ni amee na ko ñëpp def rek bisimilah ndax loola mooy njëriñ la mooy ne képp koo xam ne yaa ngi dégg kàddu bi na nga defal alxaaji barham fatiha fukki yoon ayatal kursi fukki yoon kul wallaahu ahad ak benn salaatul fatihi fukki yoon ñu daal di ko koy yéene bu boobaa ñun ñëpp ñu tasaare ko rek message bi jàll loolu mooy li gën a am solo seede yu rafet yi ak di ko ñaanal yàlla hmm. képp koo xam ne mën nga jàng kaamilu alquran nga jàng ko yéene ko ko ku ko mënul it toog bii ma wax boo ko mënee nga def ko fatiha fukki yoon ayatal kursi fukki yoon kul wallahu ahad fukk ak benn bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim salaatul fatiha fukki yoon loolu daal foofu laa yemale samay kàddu ndax man itam sama xol dafa fees ndax euh, sëriñ bi su mu toll woon ci téye bi ñun daf ñoo fekkoon sax ci yoon ñu ñëwoon démb julli xaar ci benn jotaay démb rek ci jotaay bi ñuy seede lañ ci maa ngi wax ci moom di seede ci dégg nga fekk mu yónnee fa rajoom bi Tawfiq FM ñu def ko direct may wax naan alaaji baraam day ñun lu ñu lu ñu soxla ci moom démb démb ma ne mooy yàlla bu ma mënoon man dama koy dellowaat mu nekk ndawal fanweeri at biig rek laa koy wax kon kon macha allah yàlla jël na ko